dañu dajal woon fii tey ci résidence Lat Dior ci ubbiteeg atelier boo xam ne dana def ñaari fan wala séminaire de formation wala atelier d'orientation pour sëriñu daara yi euh, cadre bi nga xam ne yàlla moo def ñu jiite ko muy union de la jeunesse musulmane sénégalaise initié ko ànd ci ak organisation bi ñu assemblée mondiale de la jeunesse musulmane fas yéene fee dajaloo tey ak suba tey ñu doon def cérémonie de d'ouverture officielle bi suba ñu fas yéene fee yendu ak lu ma téeméeri sëriñu ci Thiès ak département bi bu ñu nee Thiès ak département ndax xam nga ni Thiès capitale religieuse la Thiès bu bëri daara la Thiès Xombal Tivaouane Pire Ndiassane Thiénaba mbuur fenn fu ci ne ay daara nañu fa jógee suba ñëw fii teew fii ñu waxtaanee mbiru daara ak jafe-jafe daara ak réorganisation daara ak solution yi nga xam ne bu ci jaaree ñooñ daara gën a nekk ci taxawaay yi nga xam ne moom mégoog daara mooy taxawaay yoo xam ne mooy yi gën yi gën a sell yi gën a rafet yi gën a jaadu ngir yar gone yi xam ngeen ni daara yi bëri nañu problème santé daara yi bëri nañu jafe-jafe ci wàllu set su ma ne daara yi mooy daara yu majorité yi ndax léegi daara yu mujj yëpp gis ngeen ni euh, ñu ngi góorgóorlu ci wàllu googu ñu ngi góorgóorlu ci wàllu hébergement xale yi di góorgóorlu ci wàllu seetu xale yi di góorgóorlu ci wàllu nekkuwaay xale yi bëri nañ sax daara yoo xam léegi seeni ndongo sax duñu yelwaan waaye nag loolu day fekk daara ba nit ñi di fay wala ñu am ñu leen taxawu loolu moo tax ñu bëgg fay daje suba même ñi amul doole ba mën a def loolu ñu xool solution yi nga xam ne bu ci état taxawee wala organisation internationale taxaw ci loolu mën a jàppandi moo tax na suba ñu daje def ay kàngam yoo xam ne ñu yàgg ci liggéeyu daara lañ ay kàngam yoo xam ne ñu am xam-xam ci daara lañ ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci mbirum daara ak jàngal alxuraan ak jàng alxuraan ak yar xale yi ñu fas yéene fay yendu suba toute la journée li ñu fi lépp na suñu paree tënk ko tënk ko mooy daara yi seen situation actuelle seen problème seen jafe-jafe ak yenn solution la ñuy xaar pour mën a saafara loolu loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu fas yéene def suba ndax mbir mu nekkit dañ koy waxtaanee ndax suñu borom subhanahu wa taala boo wax ci alxuraan karim ni wa amruhum shura dañoo war a waxtaane seen i mbir waxtaane suñu mbir nag moo tax ñu bëgg fee dajaloo suba ñun ñooñ daara ñun sëriñ daara yi ñun ndongo daara yi waxtaanee jafe-jafe daara ak situation actuelle bu daara ak solution yi nga xam ne bu ci a jaaree mën a taxaw taxawaay ba mu war a taxaw mën a mel na mu war a mel mën a méngool na mu a méngool loolu daal mooy mooy mooy mooy mbir mi ñu fas yéene ci dugg suba toute la journée dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, célébrer encore une fois de plus cet atelier qui se tient aux résidences Lat euh, pour, euh, pour débattre d'un sujet très important euh, qui seulement la la situation des daara, la problématique des daara et quelques solutions pour les, pour les daara. Aujourd'hui, l'Union de la jeunesse musulmane dirigée par Cheikh Ahmed Saloum en collaboration avec l'Assemblée de la jeunesse musulmane, va se pencher sur des sujets euh, qui impacteront la vie des daara. Et aujourd'hui, on est à la cérémonie d'ouverture. Et demain, Inch'Allah, il y aura des sommités, de grandes sommités, et euh, des hommes de science qui s'affairent autour des Dara, qui seront soit des Sérines Dara, des maîtres coraniques, ou bien des gens qui, qui s'activent autour des Dara, qui viendront débattre autour de ces sujets qui interpellent directement euh, les Dara. Vous savez que demain, il y aura plus de 100 Sérines Dara qui seront là, et chacun va, va, va débattre autour de ces thèmes qui interpellent directement la situation des Dara, parce que vous savez que la situation des très, préoccupante par rapport à leur vie. Donc la jeunesse musulmane a jugé utile de, de, de, de réunir tous ces sérignes d'Ara et tous ces acteurs de Dara autour d'un atelier pour parler de la situation des Dara, de la problématique des Dara, mais aussi de proposer des solutions qui seront confinées dans un document euh, que la jeunesse musulmane proposera comme des solutions à la situation actuelle, actuelle des Dara. Donc rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah, ici au résidence Ladior, pour un peu débattre de ces ateliers de réflexion. Je vous